alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baadahu wa radiya allahu an jamici ashaabihi wa xulafaihi wa man ittabicahum bi hudaahum ila yawmi ddin mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp suñu jataay ci seen émission Shukran ñu leen di defal ci dakar midi point net ñu nuyu ñëpp di tatagal ñëpp di ndokkale ñëpp ci weeru koor bi nga xam ne tabaarakallaahu li ci des bareetul ñu ñaan yàlla li ñu paase li ci rafet lépp yàlla na ko yàlla nangu ñu ñaan ko it li nga xam ne suñu rëcc rëcc la wala bakkan yóbbe ñu ko yàlla nañu fa yàlla jéggal mbokk yi tey nag ñu dikk ak yenn ci suñu jataayu tey di ci nuyu bu baax sama xaritu bopp sama soppi ñu nekk ndoo woon ca Ellada Khatim Touré di ko bu baax ak sama soppe bopp Mortala ñu ngi koy ziar bu baax ja di ziar bokk yi nga xam ne ñu ngi topp suñu jataay yëpp tey nag ñu dikk ak yéen ci suñu jataay yu wax dëgg dëgg nag mbokk yi muy garaatu sidq ci la nit ki di taxaw rek mën a yëg ne jot na lim doon sox lim doon laaj parce dëgg moom kuñ ko seet ci yow nekkul ci yow rek booye boo ñu jañax la nële teg la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lëkkaleel ñu ñoom ñaar bi mu ciy def xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon aleykum bi sidq fa inna sidqa yahdi ila al birri wal birru yahdi ila al janna wa maa yazaalu rajulu yusaddiqu wa yataxarraa as-sidqa xatta yaktubahu inda allahi saadiqan yal nañu ko yàlla defal yonentu sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon maa ngi leen di ko wax dëgg ndax dëgg nag mooy jëmmi nit ki fu baax te nit ak mbaax rek ci la saña taxaw dugal boppam aljanna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ki du dañ mukk di doon nit ku dëggu lu dul ne daañu ko bind ca diwaanu xadratul ilaahi yenn kii day wax ko tu dëgg la te foofu kuñ fa bind sa texe nga waaye mu ne iyaakum wal kaziba fa inna al kaziba yahdi ila al fujuri wal fujuru yahdi ila an naar وما يزال النا وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتبه عند الله كاذبا yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na maa ngi leen di wattandikuloo fen fen nag dañuy wax ne mooy contraire u dëgg lépp lu existe te di dëgg contraire mooy fen wa moo tax ku duural yàlla leneen lu du yàlla rek loola fen lay doon yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne maa ngi leen di dénk ngeen wattandiku fen ndax fen mooy jëmi nit ki ci ak kàccoor te kàccoor du ommat jaam bi lu dul ne sawara lu ko jëmee teyit nag nit du dañ mukk di fen sigiñu ca nag mooy teg ca tànkam lànk ne du ca jóge lu dul ne bind nañ ko ca diwaan ba ne diw de na ngeen seede ne fenkat la ko te foofa kuñ fa bind yàqu nga moo tax euh, yàlla wax ko ci alquran ne walladina kafaru wa kaddabu be ayatina ulaika asxaabu naari hum fiha xaalidun mooy ku weddi yàlla rek toujours dañ lay considérer dugal la ci gaalu fenkat yi yàlla nee na ñu weddi yàlla weddi suñu aaye yi ñooñu de man yàlla maa ngi leen di boole ci ñooñ sawara ñi nga xam ne buñ fa duggee dañ fay sax amul intervention moo tax jëlee nañ ci abi hurayra radiallahu anhu mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na tegtal yi wane ni nit ki naafiq la ñett kepp la ñu ne ko ban ak ban la mu ne bi ci njëkk mooy su waxee rek la mu wax dara du ca doon dëgg ay fen lay doon ñu ne ko ak ban bu ci topp mu ne mooy koo xam ne su ngeen dëxalantee mu def contraire ba bu la joxoon rendez-vous tey li ci gën a gàtt ne la xaar ma barab sàngam bu heure booba jotee boo ko woowee ma nga feneen ñu wax ni bi ko ñetteel mooy koo xam ne soo ko wóoloo mu trahir la muy lu bari ci suñu jamono nag tey suñu jamono ji tey daanaka dangay dem sax bu dootoo xam koo mën a wóolu parce que bari na ku ñëw won la ngor wan la sincère gu mat sëkk ba nga téye koog sa fukki loxo waaye fekk na boo gëstoo biiram ak bitam yépp ay wor kese la lal yàlla na ci yàlla musal moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ku ko mos laaj ne ko yow mi yàlla yónni man daal dama yëg ci sama bopp ne bàkkaar def ko def ma yomb lool ma di la laaj nag lan nga may jëfal lan nga may lan nga may digal ne ma naa ko jëfandikoo ngir mën a mucc ci bàkkaar yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bàyyil fen mu laajaat ko mu ne ko bàyyil fen ah mu mel ni jàpp na li ko yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam dem bi mu demee bëgg a njaaloo mu xalaat ne bu njaaloo su ko yonent bi laajee ne ko ndax njaaloo nga ci diggante bi su ne ko déedéet day fen mu ba njaaloo bëgg naan sàngara xalaat ne bu ko ko yonent bi laajee mu wax safaan ba day fen mu ba sàngara topp bàkkaar yi benn par benn di ko bàyyi bu mu jig mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ashrafal xalq benn bunt nga ma tëjal mu tëjal ma buntu yëpp mooy benn buntu bàkkaar nga ma tëjal mu tëjal ma mbooleem bunti bakkaar yi keroog bi nga ne ma naa ba fen ci laa yëg ne banaa bàkkaar yëpp kon mbokk yi fen garaaw na te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laajoon ko laajoon nañ ko nag ne ko ndax mu ndax jullit dana naan sàngara yonent bi ne waaw ñu ne ko ndax jullit dana njaaloo yonent bi ne waaw ñu laajoon ko nekkoon ndax jullit dana def naka su noona mu ne waaw waaye bi ñu ko laajee ni ndax jullit dana fen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy jullit du fen euh, mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa wax ni man kadaba alayya mutaammidan falyatabawa maqaduhu min annaar inna kadiban alayya laysa ka kadibin ala ahadin mbokk yi yonentu sallallahu alayhi wa sallam daf ni képp ku ma fenal te tey ko na nga fàkk sa place ca safara kenn du la fa tere dëkk ndax fenn ci man yonent bi sallallahu alayhi wa bokkul ak fen ci keneen moo tax fen ci yonent bi garaaw léegi nag suñu jamono ji boo ubbee réseau sociaux yi wala télé yi da ngay gis kuy woote woone boroom xam-xam la toog di fenal yonent bi yoo xam ni waxu ca dara walla toog di daganal ci diine ji loo xam ne amul fenn fu mu mën a def cëslaay li muy lu xaraam ci loo xam ne mbokk yi ñi fanatique bu ñu ko déggee danañu ca potoxlu sax ba salfaañi suñu diine ji mbokk yi euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na doyoon na sëkk nag ci as cam su ne nag aw fen muy loo dégg yàkkamti ko siiwal euh, ngeen baal ma ba ci taskatu xabaar yi léegoo lekk sax nga gis benn mbir mu xew scandale bu xew waaye dañuy yàkkamti diviser ko ba duñ ca dugal sax lay dëgg na ñoom na jàll rek nañu ko wattandiku nag ndax am na lenn ci na yu wax ne euh, bokk na ci yi tax nit ñu xam ne kii dëgg euh, nit ku dëggu la parce que dëgg mooy caq bi nga xam ne awliyaa yi wala nitu yàlla yi caq biñ daan takk pour ñu mën leen a xàmmee dëgg la woon mooy mooy mooy nit ñu dëggu lañ doonoon euh, ñu wax ne fen nag mooy màndargaam nit ku nar a texee di ndax yàlla leeral na ko ca alquran nag nag nee na yowmal qiyaam bu ñu fa ñëwee ñi dëgg woon li leen di jariñ mooy dëgg ga ñu nekkee woon ci àdduna loolu rek moo leen di jariñ parce que su boobaa dëgg day soppeeku jëmm daw song la wane na yow ku ko doon dund nga ku ko jëfee nga moo tax yàlla wax na ca alquran ne yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha wa kunu maa saadiqina yéen ñi gëm yàlla nangeen ragal yàlla te ngeen boole seen bopp ci waxkati dëgg yi ndax wax dëgg dafa am solo mbokk yi yàlla wax na ne waman waman iftara ala waman azlamu mimman iftara ala allahi kadiba ala allahi alkadiba wa huwa yudaa ila al islaami wallahu la yahdi al qawma alzalimina ah, yàlla wax na ci alquran ne kenn dàquta tooñ ki nga xam ne day fexe di bis bu jot muy duural yàlla ay fen yoo xam ne amul fenn fu mu ko mën a cëslaayoo ba noppi di woote woo diine lislaam ne ci la ko teg nañu xam ne nag yàlla am na fayda ju day ni du gindi képp koo xam ne da teg sa tànk ci fii dérapé mbokk yi yoon wi leer na waaye ku teg sa tànk ci mboy gi nag ñu seetaan la daañu ci potox lu dugal benn nettali bu ndaw bala ñoo jeexal suñu jotaay mooy dafa am benn jaam buñ doon jaay ci benn marché ki koy jaay ni kim koy jaay kii di sikk sim am mooy fen rekk la man mu ne ko mën naa ci dara jënd jaam bi yóbbu ca këram bi mu egsee benn bés la fa yendu xëy ne ndaw si sa jëkkër de dafa bëgg takk ñaareel ndax dégg naa ko mu wax ak as ndaw te dara du ca dëgg mu ne ko lu cay pexe mu ne ko man de am naa ca pexe mun ma ca joxoon ca suñ dëkk benn xam boo xam ne boo daggee ci kawaru sikkiñ bi soo ko boolee ak moom soo ko defee du takk ñaareel ndaw sa nekkoon ko def ba am ci kawar gi mu ne ko wutal paaka bu ñaw nga xam ne mën nga koo dagg ci buy nelaw te du ko yëg ndaw sa ne ko buy nelaw ma def ko dikk ci buur bi wax ko ne ko sa jabar ji day a dégg naa mu waxtaan ak geneen góor nag ba nas nañ seenum pexe buñ la fi jëlee insha allahu taala mooy dañoo bëgg a sëy mu ne ko loolu lu ci jublu mu ne ko ah xaw ma lu mu ci jublu daal waaye ñu la coup d'état ci moom lañ koy jaare ndax nee na boo tëddee tey di jël geste dana jël paaka dana dagg sa kawar dana dana dana la rendi buur ba añ ba suur tëdd mel ni kuy nelaw te nelawul di bàyyi ndaw si xel bi ndaw si agsee bay dagg ci kawar gi mu ne teeb ci loxo bi téye ne ko waxoon nañ ma ne dang ma rey daal di jàpp ndaw sa rey bokki ndaw sa jóg attaqué buur bi rey ko mu doon xeex boo xam ne kenn xamul fa mu yem ci wenn fen wu taal ab dëkk kon mbokk yi nañu wattandiku fen nañu wattandiku wax lu dul dëgg suñu réew mi bu ñu seetee jamono yii ci gannaaw alal ju bari yàqu na bakkan yu bari rot na te dara waralu ko lu du ay fen kon nañu wattandiku fen yàllaa ñu ko wattandikuloo yonent bi moytandikuloo ñu ko te jullit day moytu fen bu bëggee doon jullit bi gën yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu